ndax xam nga lu tax sëñ Sidi Mokhtar. Cheikh bi nga xamee ni El Hadj Baara moo fi toog. dama dem siyaare ji ko. ne ko man de Mbàkke dama bëggoon nga jox ma lu ma liggéeyal sëñ Tuubaa. Mm-hmm. tontu ma daal di sëñ Amidou daal di ma jox juma Daaru Salaam. siñ Amidou Daaru Salaam waaw. sëñ Amidou dama naa ko liggéey. Mm-hmm. daanaka sax bi mm-hmm. liggéey bi sotti. Mm-hmm. sëñ As Guède fi toog. ok. bi loolu pare bi ma jébbalee liggéey bi ba pare dem nag fekk sëñ Sidi Mokhtar Touba mu ne ma mbaa xam nga ni borom Touba moo boole woon sa maam. borom daar salaam ma ne ko wax nañ ma ko mu ne ma nag fi mu toll tembe am naa sañ-sañ kooku doon na xalif daal yëkkati jumaa ji Touba. jumaa Touba jumaa bu Touba ne ma lu la neex def ci ba ma dégg ci ku ci wax ku ci wax boo ci bokkee ma yor la ci sa maam boo ci bokkul na xaw ma ci yow dara. te nga fa mu waxee de man nag lu ma daan def nag dama daan tàggu sëñ Muntaxa bu ma ne dëkk defe naa su ma juumul maag sëñ xëy na sëñ Moustapha Lakaram ñoo àndoon wala yooyu. Mm-hmm. ku baax moom it. sëñ a mu di Saadix mm-hmm. bi ma ñëwee. Kader mi mu ngi ci woon. bi ma jubee sëñ Muntaxa boobu sax. daanaka nit mënta xalaat sax ni sëñ Muntaxa moo may doon ni sëñ Tuuba mm-hmm. mais moom seetloon na seetlu boo xam ne mm-hmm. man liggéey bi ak ni ma ko gisoon ak fi ko sëñ Saaliw tegoon lu ma daan dugg dama koy wax bi ma ñëwee ne ko parce que liggéey bi dafa xawoon rëy ci man mm-hmm. ma ne ko ma ñëw ne dama tàmbali rek que Mbàkke ñoo ngi lay siyaar de te doon la xamal ni dama bëggoon nga ñaanal ma pour liggéey bii nga xam ni sëñ Sidi Moxtaar daf ma ko dénk mu ne ma yemal foofu xaw ma bandi waaye bii moom dana yegg. <laughs> dégg nga wax ji de. ne ma ndax de bi ngay ñëw yaa ak borom Touba ànd. Hmm? ah sëñ Muntaxa fi de. wax ah, dëgg la ma demal. yow ak sëñ Touba yéen ànd. xaw ma ban moom mais bii day yegg. Hmm. donc xam nga ñooñu euh, defal nañ loo xam ne. parce que man de bu ma bu ma xamee ni ma dégg ñuy wax murit dañ daan wax ni sëñ bi ci boppam bu wootee liggéey daan na épargne waa tuuba ñeneen ñi am lu ñuy joxe mais ñi dëkk Touba moom xëy na barkeelu bi sëñ bi daal moo xam lu mu ci jublu woon mm-hmm. waaye yow bu fekkee ne danga xam jumaa Touba. ku mos liggéey ku ko mos liggéey te dërëmu kenn nga mën a waat ni dugg ci. Hmm. wax na ko. dëgg amul amul de ñëpp daan bokk. waaw loolu kan ko baaxee mu foo koy fayati. dëgg yàlla kay Serigne moom ci boppam ni mu ngi def ci jumaa ji moom ak keneen. man ba léegi keroog lañ ma wax ni ma sax lañu gis seen Cheikh Saliou dugg ci jumaa ji keroog dafa xabaat bi mun jàkkaarloog barabu sëñ bi. Hmm. Allahu man sama bopp. jaaxle woon na après nag xam nga au fur et mesure ngay xalaataat. Mm-hmm. waxu sëñ Saliou nii maanaam lu ma santoon su ma koy jéem a def mu ne ma toogal rek bis dina ñëw di ma ko liggéeyal te doo ci sonn parce que bi ma ko sëñ si di maxtaar di yéen boobu attan naa ko xëy na yow bu ma la waxoon tey ñaata milliards laa ci def doo ko gëm dërëm kenn dugg ci. lu ma ñaqal sama bopp la. man maa ànd ak sëñ Abdou Samad mu ngi fi dem ba li fi gën a baax mhm. xool juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. laajte ñan ñoo defar liggéey lii ñan ñoo liggéey litre ñan ñoo liggéey bunt yi climatisation yi maa ngi moom ñoo daan ànd di ko dox ah waaw sëñ Abdou Samad mhm. décoration yeeg te bu ne dama laaj juma Médine ku ko liggéey ñu ne ma teel entreprise ñu dem ba foofu wax ak ñooñu ñoom sax daanaka ñu ci bëri au début dañ foogoon marché la mën ne lii du marché sama ñaqu bopp la yéen nag bu ngeen ko jàppee marché da ngeen di liggéey waaye man ki may liggéeyal xam naa ne du nit loolu nag du caa sax dama koy leeral parce que euh, suuf bu ëppantee rek dañ ko jàll dëgg la